asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-benn ci muharram muy weeru tamxarit di weer bi njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaari fan ci weeru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan ak juróom-benn dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci ajjuma ji rafetul ajjuma ju nekk sopp nañu ku ca bëril julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ca jàng suuratu kaaf ñaanuk bis bi yow yàlla. yàlla na nga ma defal may jëf aw yiw tey bàyyi lu ñu tere tey sopp way ñàkk ñi te nga jéggal ma te yërëm ma allahuma inni asaluka fiala alxayraati wa tarka almunkaraati wa xubba almasaakiini wa an taxfira lii wa tarxamani allahuma inni asaluka fiala alxayraati wa tarka almunkaraati lii wa tarxamani xadiisu bis bi jëlef na ci abi hurayra yàlla yàlla gërëm ko mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee képp koo xam ne julli na ci man benn yoon sunu borom dina julli ci moom fukki yoon xadis bi muslim nettali na ko an abi hurayra radiallahu anhu anna rasulallahi salallahu alayhi wa sallam qaal man salla alayya waxida sallallahu alayhi ashra rawahu muslim